di ñaan borom bi subhanahu wa taala mu wacce jammam ak yërmandeem ci yeen wacce ko ci ñun wacce ko ci kër gi wacce ko ci aduna bi yépp ngi ñëwaat ak yéen rek seen darse bi ngeen di am ci tafsirul quran e, ci lëndi bu jot ñu ñaan borom bi subhanahu wa taala mu nangul ñu ko di jaajëfal mbokk yi nga xam ni ñoo fi jiitu tey wa ala rasihim ta ki nekk ci seen bopp ci programme tey bu mooy imam Sini, ñu ñaan yàlla na ko yàlla fay yiw ci lu am solo li mu indi ci wàllu ñaan di ko jaajëfal bu baax ci taxawaay bi bokk ci rek lu yonte bi sallallahu wa sallam ni al atqiya al axfiya dañoo xam dañuy liggéey ci suuf rek fekk liy feeñ lépp ñoom la macha allah yal na yàlla jàppale jàppale ñëpp rek su ko defee buñ jëlee nuyoo bi teg ko ci imaam ratib euh, teg ko ci loxo suñu sëriñ imaam pap ñu jox ñu ko imaam yëpp ak borom xam-xam yëpp jox ko waa dëkk bi ñëpp yàlla yàlla def jàmm ñu ngi euh, war a commencé tey ci sóoratu nasri jaajëfal sëriñ Ibrahim Baas mi nga xam ne moo jeexal sóoratu Masad macha allah sóoratu Nasr mooy ida jaa nasrullah nasru nag mooy ndimbal saar bi noonu leen ko tuddee saaru ndimbal ndax yonte bi sallallahu alayhi wa sallam mission bi ko yàlla joxoon ku ko yàlla jox nga soxlaa ndimbal yàlla nag euh, ñëw na ak ndimbalam ndimbal loolu yàgg nañ koo séentu yàgg nañ koo soxla yonente bu mas a ñëw daan nga séentu ndimbalu suñu borom boobu pour mu defal la ko ci lim la sant ba yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw ci soratu nasr ak yu ko jiitu soratu nasr <clears throat> makka la wàcc suratu nasri ñu ngi jégglu kon ñu ngi bëgg a wax ni madina la wàcc ci saaru madina yi la bokk mu ngi wàcc ginnaaw taw ba tawba taw ba ginnaawam ci la saar yu wàcc waaye bu ngeen xoolee ci toftaloo gi toftaloowul ak taw ba moo tax walaysa tartibul ada Euh, tartibul ada bokkul ak tartib an nuzuli bi mooy nii nga xam ni noonu la saari toftaloo ci kaamil bi nin ko toftalee nii loolu tekkiwul ni noonu la toftaloo wàcce noonu déedéet moo tax nga gis kii wàcc ginnaaw sóoratu tawba waaye ñu soriyantoo lool mu nekk ci diggante sóoratul kaafiruun ak sóoratul masad ndax alquran dafa am benn scénario benn silsila rek comme kurus bu wadd rek euh, ba ca des daf ci daal di topp ndax méngoo ak roofaloo ak nosew tartib bii nag tawqiifi la yàlla moo ko yenkewal yonte bi sallallahu alayhi wa aaya bu wàcc mu ni def leen ko ci ginnaaw aaya sàngam wala def leen ko ci saar sàngam saar ba ñuy bind tamit kazalika fekkewul euh, dajale gi nii nii mu nekk ab kaamil waaye nekkoon na fa waaye ci anam bu wesaaro ci anam bu tasaaroo moo tax kon loolu moo tax ngeen gis saar wi sorianto lool ak taw ba seen munaasaba nag lan moo tax li mu méngoog sóoratul kaafiruun ba tax ñu lëkkale leen mooy borom bi subhanahu wa dafa digal yonte bi sallallahu alaihi wasallam mu dañ ba set wicc ci yéefari li ni jàmm ni ko nag yow li ma la sant nga nekk ci dinaa la ci dimbali ba nga am ndam ci seen kaw ba seen diine fay nga am ndaw seen kaw bu boobaa nag sa mission jeex na nga préparé nag pour ñëw uyu si ma moo tax saar wii di soratu nasr wax na ni mi ngi wàccoon ci li nga xam ne mooy ayaamu tashriq ci xajjatul wadaa wala wadaa booba la wàcc yonente bi sallallahu alayhi wa dundaat na ginnaaw bi saar yu lu mat juróom-ñett fukki fan ginnaaw bi saar wàccee moom la yonente bi dundaat waaye yonente bi moom feebaram moom li gën a léemtu wax na ni fukki fan ak juróom la comme ni ngeen xamee uute mooy seen aada ñoom boroom xam-xam siira yi kon saar yi loolu li gën a bari ci boroom xam-xam yi loolu lañu wax ci sababu nuzulam maanaam li taxoon kon ci saar yi kañ la wàccoon ci bañ jamono la wàcc mooy ca xajjatul wadaa ca ayaamu tashriqiya ya ah, ca fan yi tabaski yooyee yonte bi sallallahu alaihi wasallam abdullah ibn umar neena na bi saar yu wàccee yonte bi dafa waaj dal di tak li nga xamni moy mooy gëleemam di koy war dal di khutba khutbam gogi moy khutbam bu siw bobu bam defon hajjatul wada ca la len waxe won ni man na am ane bi moy sama mujjé dajje ak yeen baba kon mom comprendre na ni saar wi dafa ñew di ko tàgge moom bi sallallahu alaihi wasallam kon saar wi ndimbal la waaye saaru tàgge la waaw tàgge na lay nekk ndimbal ax ah, nit buñ la santee dara te li la wër ñépp te nekkuñu ca lan la sant ñu ngi xeex pour nga bàyyi loola yàlla may la ndam nga sax ca sax ca dër rek tée tée tée ba loola mat nga xam ne ca nga war a génne àdduna a ah, waaye am nga ndam kon loolu euh, tàgge la waaye tàgge bu indaale victoire la kon borom bi subhanahu wa taala foofu la jaar ak yonte bi sallallahu alayhi wa sallam wax nañ ne nag saar bi kon ñaar yooyu lay gëna wax bi ci jëk moy ñëw di yëgal yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ko mission bi jeex na bu ñaarel bi moy li ñu tuddé fathu makkah fathu makkah sar wi mu ngi koy junji di wan ni yonte bi sallallahu alayhi wa sallam war dem dafi li ñu de fatxu makka fatxu makka googu mi ngi amee woon ci weeru koor yonent bi sallallahu alayhi wa bi koor ga amee fukki fan ci atum juróom-ñetteel ma ca gàddaay ga la daal di génn uti fi nga xam ne mooy makkatal mukarrama ci ndigalu borom bi subhanahu wa taala war a defi fatxu makka saaru mi ngi koy junj waaye boo demee ba ca sóoratul fatxi la ko gën a leer borom bi subhanahu wa taala digal ko mu wara dem màkka waye nak amna sabab ndax ñi nga xamni ñoy ñooy ca waqaatul hudaybiyya yanta bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am ay pacte yu ma yu ñu signé won fofé ci wàllu jàmmo yanta bi nek allié ci li nga xamni ñoy banu xuzaa waa Quraysh dem allié farak yi nga xam ni ñooy Banu bakkar waaye xam nga ñaari kuréel yi di Banu Xuzaa ak Banu Bakar ay kuréel la woon yoo nga xam ni dañoo mënoon a jàmmaarloo lu jëkk ñuy dugg ci diine ji da xeex xeex yu bari waaye seen xeex bu mujj Banu Xuzaa ñoo amoon ndam ci kaw Banu Bakar bi ñu nooxee nag wér nañ gàndaay yi kenn xeexatul kenn amatul droit song kenn ñépp kenn ku ne jàpp yaa ngi ci jàmm waaye Banu Bakar moom bàyyiwul ñu jël occasion boobu profito ci pour fayu ci li nga xam ni moom moo xewoon ci digganteem ak Banu Xuzaa ki nga xam ni mooy Nawfal ibn Muawiya ad-Dayli bàyyi ba guddi rek mu daal di génn ak benn mbooloo ci wa banu bakar dem fekki wa banu xusaa fa nekk ñu songu leen ci guddii ray ci ñom lu bari am ñen ño xamni ci wa quraysh lañu bok it ñu ku ci guddii gi and ak wa banu bakar di leen xexle jox leen ay ngànnaay ñu dem euh, ray ci ñom ñen ñi daw bañu dak leen bañu dem ca kaaba ak dem ba ca kaaba ga legi ñen ci ñom daldi wax ni ko yow naw Nawfal mu Muawiya ilaahaka ilaahaka yaa ngi ci moytu sa yàlla ji sa yàlla ndax yaa ngi ci xorum bi nga xam ni moom lu jëkk islaam di ñëw tamit dafa amoon chiaaru wa man daxalahu kaana aminan képp ku fa dugg rek am nga sécurité loolu lu yàgg la woon sax lu jëkk islaam di ñëw mu ni leen laa ilaha al yawma yàlla amul kàddu gu rëy googu moom moo ko waxoon keroog ni leen tey yàlla amul dal leen yaa bani bakr asibu saarakum yéen waa banu bakr fayu leen am ngeen occasion fayu ngeen naan ma yéen a ngi ci kaaba geeg yàlla tey yàlla amul daal leen ni yéen a ngi nii di sàcc ci kaaba gi kon kay bu ngeen mënee fayu eh, ci ñi nga xam ne mooy banu xuzaa fayu leen loolu nag ci la noonu ki nga xam ne amru bnu salim alxuzaa yi daal di génn takk war waayam uti madinatul munawar munawara pour waxi yonte bi sallallahu alayhi wa ni ko kat sa gaa yi fecc nañu kóllëre ga gaa yi dindi nañ kóllëre ga euh, ci noonu la euh, demee wax ko yonte bi yonte bi sallallahu alayhi wa daal di waaj waaye ki mel ni Abu Sufyaan doon dem moom it pour négocier pour wax ni pacte bi ak jàmm ji ñu signé woon moo continuer ba tey waaye taxul loola yonente bi d'accord ci bi mu wax yonente bi faaliwu ko demee ci Seydina Aboubacar Seydina Aboubacar faaliwu ko dem ci Seydina Omar Seydina Omar ni ko moo amoon occasion dagg sa law si fii sax ma def ko yow noonu yàlla bi mu dem Seydina Ali Seydina Ali ni ko da ngay ut ku la jiir waaye yooyu yëpp jariñul mu daal di delluwaat fi nga xam ne moom mooy Makka bi mu demee mu jox leen information bi waye abbas ci résumé rek fexna ba indi ko ci yonte bi sallallahu alayhi wasallam fek ñom ñu ci yoon wi wara dugg fi nga xamni moy euh, makka campé fofu yonte bi sallallahu alayhi wasallam kera bi mi dem mu ngi and ak fukki junni ci juliti, bobu nombre la ñu ñu gis seen tali ñom ñay waxtaan abbas fek mi ngi waroon gëleemu yonte bi sallallahu alayhi wasallam di rondu pour di xol parce que yonte bi sallallahu alayhi wasallam ñaanon na ni yalla yalla nga euh, gumbal euh, bët yi ñi nga xamni dañuy gis ay information di joxe ben xibar du ag Makka pour ma man leena bet songu len waaye Abbas bi mi yollu ak rondu ci la deg Abu Sufyan di wax waaye Abbas dal li addu Abu dal li euh xamé kaddu Abbas mu wax ak mom ba indi ko ci yantabi sallallahu alaihi wa waye waaye Euh, fala fanaan moom Abu Sufyaan euh, yonente bi gaaral ko islaam mu nar bañ Abbas wax ak moom mu daal di d'accord daal di dugg ci diina ji Seydina Abbas ni ko Abu Sufyaan mii de nit la koo xam ni ku bëgg dara jala joxe ko dara jale ko dara yonente bi daal ni Abu Sufyaan boo demee ni la ñu waa Makka ñu ngi ñëw waaye képp koo xam ni wa man daxala daara abi Sufyaan fa huwa amin wa man axlaqa alayhi baabahu fa huwa amin wa man daxala al kaabata fa huwa amin wax leen ni la képp koo xam ni dugg na ci kër Abu Sufyaan am nga sécurité kenn du la laal Abu Sufyaan bi waxee loolu nag Hind nag mel ni ku waaru ci waxe Abu Sufyaan ci daal ko ci wax xas ko fa Abu Sufyaan di ko wax rek daal di continuer wax ni leen képp ku dugg sa kër tëj sa bunt am nga sécurité gars yi commencé tasaaroo kenn ku ne di daw di duggi këram ku dugg ci kaaba gi am nga sécurité ba noonu yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ci tënk rek euh, suratul fathi incha allah bu yàlla dogalee ñu àgg fa bis wala ku fa mënti àgg rek fa lay gën a yaatoo ci noonu la yonte bi sallallahu alayhi wa sallam duggee bi mu duggee makka nag war gëleemam ga bi muy dugg dëkk ba mu ngi sëgg am kersa ndax ndam li ko yàlla defal ndeysaan am kersa lool siggiwul wane boppam waaye dafa dafa rus dugg ñëpp ñëw toog ci kanamam di ko xool di deglu discours discours bi lan la war a wax kenn ku ne tamit yaa ngi tiit di jàpp ni tey mooy sa bisu dee ñoom ñëpp ay jaam ci kanamam di deglu rek nek jaam boo xam ne amuñu kaddu tey yonente bi mooy sang li ñu bañoon démb nangu nañ ko tey yonente bi sallallahu alayhi wa ni leen lan ngeen jortu ni mom la len wara def tay ji ñu ne ko dal anta akhun karimun wa ibn akhin karim yow de ku bax nga mbaax gi wax na deug xam nañ ko demb dañ ko bañ nit yenn saa yi nga xam ni li moy deug waye nga bañ ko wa xam deug ba pare bañ ko mo len daloo waye doomu mbokk mu bax nga gis nga ko tay nangu ñoo bokk ak mom ñu ngi feñalat ak mbokk ndax amna na intérêt bu taxaw seen bu ñuy sentu ndax mooy ñu bàllin yonente bi ni leen izhabu fa antum tulaqa gis nga baat bi yonente bi jëfandikoo dem leen tey ni ngeen nekkee ay jaam nii sama kanam dem leen libéré naa leen tulaqa ndax ñoom ñépp seeni loos tey mi ngi woon ci loxo yonente bi sallallahu alayhi wasallam kon loolu moo xew ci fathu makka yonente bi sallallahu alayhi wasallam jëflante foog ñoom jëflante bu rafet Euh, bi loolu weesee saar wii di sóoratu nasr mooy ndimbal yonent bi sallallahu alayhi yàlla di ko xamal ni ko maa lay dimbali ndimbal li mooy yow li ma la santoon sax nga ci ba sa dem jot yow ngay dem nag tekkiwul ni sa sama ndimbal day dem wata yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu génnee àdduna sax diine ji tasaaroo na gën leen tasaaroo bu gën a gaaw ka jamono bi muy dund ndax saxaaba yépp dañu génn ñu ci bari dem ci dëkk yi fat futuxaat ñëw moo tax borom bi ni ko nasru moo ñëw ndimbal bu fekkante ni du ndimbal loo nga xam ni euh, dafa aju rek ci dundug yonte bi sallallahu alayhi wa sallam kon bu yonte bi génnee àdduna ndimbal loolu day jeex waaye diine ji ba tey ndimbalal yàlla lay doxee ndax lu ne xeexe nan ko lu ne def nan ko ba ci li ñu wax ni xadis la mooy la yabluganna hada al amru ma balaga laylu wa nahar yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam waxoon ne leen ni mbir mii di diine ji fépp foo nga xam ni jant bi fenk na fa wala mu soofa dina fa àgg te kon mooy àddina bi fépp summa la yatruku llahu bayta madarin wala wabarin illa adxalahu hada al amra yàlla du bàyyi néegub ban néegum ñax wala ay kaw la wala ay taax la fépp fu nit dëkke ak noo fa mënti dëkkee diine ji dina fekk lu dina ko fi dugal bi izzi azizin yuizzu llahu bihi lislaama wa ahla wa bi dulli zalilin yuzillu llahu bihi lkufra wa ahla loolu nag yàlla da koy def ngir tedd nga nga xam ne moom lay teral ñi nekk ci diine teral islaam teral ña téye ca islaam na téye diine ji waaye dina toroxal ak kéefar ak képp koo xam ne danga ngoy ci kéefar kon moo tax yàlla tudde ko nasr moo tax gaa yi yàlla yi ñu baax ñi euh, nasr bi ñu am dëgg-dëgg ndimbal mooy yàlla dafa jël ndimbal def ko seeni xol ba pare soog koo def seen yaram ndax xol bu amee ndimbalul suñu borom dina supporter sax lu yaram àttanul waaw تعبت في مرادها الأجسام waaw ida balagati nufuusu kibaara taibat fi muraadihal ajsaam waaw bakkan dina toll foo xam ni yaram dina toll foo xam ni dootul attanati yitte borom dootul attanati kartanu xol bi nekk ci borom li nekk ci xolam ci ngëm yàlla ak ci yitte ak ci pas-pas yaramam moo ko dul attan waaye xolam moom toujours day am kartan moo tax yàlla ni mu dimbali ñépp seeni xol la jëkk a roof ndimbal gi soog koo roof yaram yi bi nga xamee ni sax yaram yi dem na ba lottu mënatul a dem xol bi mooy continuer moo tax nga gis ñenn ñu ray leen ci ñu dee parce que yaram jeex na waaye teewul xol moom gëm la mu gëm rek jàpp la mu jàpp kon loolu mooy nasru léegi nag yoon bi nga xam ne saaru wàcc na wax na la ni juróom-ñetti fukki fan la toog di feebar daldi feebar parce que xamoon na ne saaru tàggoo la bi mu feebaree nag saxaaba yépp jaaxle nañ ndax ñoom gëmuñu woon ni jamono dina ñëw gëmoon nañ ko waaye bàyyiwuñ ko woon xel ñu toog xool du ñu gis yonte bi sallallahu alayhi wa sallam fekk ndek yàlla moom tàgge woon na ko bu yàgg waxoon na loolu ñu koy jàng waaye daaw ñu ko settantal waaw yonte bi sallallahu alayhi wa sallam wa muhammadun illa rasulun yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ab la de xad xalat min qablihi rusul amna ay yonente yu ko jiitu woon ñu dem nan afa in maata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibay falan yadur allah shay'a wa sayajzi allah shakirin yàlla ni yonente bi sallallahu alayhi wasallam du mo yonente bu fi massa jaar dem amna na ñu ko jiitu ñu bari dem nañ ñu bari dem nañ waaye nak ndax su génné aduna ndax da ngeen di delu ci la ngeen nekkoon motax tax kon al irtibatu bil ashkhas bil ashxaas nit ki euh, am tafu rek am relation ak jëmm yi da ngay am relation ak li jëmm yi indi moy pas-pas yi alquran diine parce que bu fekke jëmm ngoy def jëmm du sax jëmm du sax kenn du sax yent bi ni len alquran ni len ndax bu genné aduna da ngeen di dellu ci la ngeen nekkon kon mu ngi len di wax ni mbir mi bis dina ñew mu genn aduna waye gis nga kere ñom ñepp jaxlé na waaye bi mu feebaree la leen jaaxle gi dugg ñuy mun muni ndeysaan xam nga ni yonente bi sallallahu alayhi wa néegam ak jàkka ji dañoo taqale woon mu am buntu sarale li ñuy wax ci jàkka ji lépp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu koy dégg ñu am ak tiis mu ni tëll ni leen balaxa ni annakum taxaafuuna min mawti nabiyikum ah man de dégg naa seen waxtaan dafa mel ni daal da ngeen di am ak njaaxle ak jaaxle ak ragal ak tiit ci sama génn àdduna ni leen fa hal xulida nabiyun qabli bu la neexee fal xalada fii man baasa allahu fa axluda fiikum ala inni laaxiqun bi rabbi wa antum laaxiquuna bi mo ndax da ngeen a mas a dégg benn yonente boo xam ne yàlla daf ko yónni mu sax ca aw xeetam di dund ak ñoom ba faw daal leen man damay dem waaye yéen it da ngeen may fekk si waaw comme yonente bee dem nag kon ku demati war ngaa mën a dem waaw ndax bu fekkonte ni am na ku yeyoo dund te doo génn àdduna kon yonent yàlla muhammad kenn du ko ci gën a yey sallallahu alayhi wa sallam law kaanat dunya tadumu li xayin la kaana rasulullah fiha xaalidan muxallada bu fekkonte ni àdduna dafay sax ak kuy dund di ko fi bàyyi ba faaw kon yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom moo fi bél moo fi sax moo tax kon saar wi tàgge na yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye tàggewul diine ji waaye tàggewul pas-pas yi waaye tàggewul alquran yaram waa dem jëmm ja waaye la mu indi woon demul moo tax yàlla ni ndam ñëw na waaw ndam ñëw la kat ndax li nga xam ni ñu ngi leen si doon xeex li nga xam ni takk ngeen ciy xare li nga xam ne raytan ñu bari li nga xam ne moo tax ñu génne leen makka moo tax yàlla gis nga boolewaat victoire bi ak génnuk àdduna yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ak fatxu Makka ci benn saar di ko wan ni ko bala ngaa dem fan la génne woon dinaa la fa dugg may la fa ndam ba nga xam ne su ma la waxee sama ndimbal ñëw na nga war koo gëm mooy iza jaa nasrullahi wal mu teg ko ci wal fatxu fatxu Makka pourtant mën na cee teg leneen ak yeneen yeneen dëkk waaye mu ne ko Makka gi nga xam ne fa la mbir ma soxo woon ñu la ne du fa bala nga xam ni eh, lu ne dañ nga ko fa bala ngaa génn ah, dinga fa dem estele fa wër ca kaaba ga kër yonte bi sallallahu alayhi wa sallam tawaaf na ndeysaan kenn baarewu ko saxaaba yi escorté bi mu am bi mu defee fattu bi keral julli na yoor yoor julli na yoor yoor julli juróom-ñetti rakka moo tax dañuy wax ni loolu mooy rakka salaatul fathi bu la yàlla mayee ndam ci benn mbir mooy da ngay dangay ngay julli juróom-ñetti rakka kera yonte mom la def moo tax saadu abi waqas ci fathul madain mom la def roye ko yonte bi sallallahu alaihi wasallam dal judi juróom ñet rakka kon ndeke lol tam dañ jang ni yalla bu la mayee ndam da nga ngay sujjóot da ngay julli nga sant ko ko nga delloo ko njukal wa yonte bi kero wéru koor la won amna fa fukki fan ak juróom ñen fukki fan ak ñent di wañi julli ndax dafa nekkon ci tukki ak fukki jinni Euh, saxaaba yi nga xam ni ñoom la àndaloon ci euh, fatxu Makka boobu alayhi salaatu wassalaam kon dem na yàlla ne ko ida jaa su dikkee ida nag waa daara ji zarfu lima yustaqbalu min azamani ida jaa su dikkee ba ko koy wax euh, boobu dikkagul wala ñu ni daf ko nettali muy xikaayatul maadi li nga xam dafa paase la nettali ko waaw euh, ndax fatu màkk gi mu ngi amoon ci atum juróom-ñetteel mi ci gàddaay gi moo tax yonte bi sallallahu alayhi ba mu jógee fatu màkka demaat na gazwatu tabuk ah dañuy wax àndoon ak sabuna alf soixante-dix mille malaaka astaghfirullah saxaaba kera ànd na ak ñoom moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon ida jaa su ñëwee nasrullahi ndimbalu yàlla gis nga mu jël ndimbal bi moom yàlla askanale ko ci boppam di ko wan ni man maa lay dimbali waaw ndam li man maa koy joxe nasrullahi kon boo boo boo bëggee nasru rek ndimbal maanaam demal ci yàlla rek moo gën a gaaw fuuf ndax ko ko li ngay koo yaakaar pour ndimbal ci moom kooku tamit yàlla la yaakaar rek ci yàlla la koy jëli ji kon yow foo dafa bokk ci fulla fa ñëpp di tibbijee nga dem tibbijee fa rek directement parce que bu jaaree feneen man naa am mu wàññeeku li nga mën a jëli bu ko yóbbante ndax yóbbante lu ne xaj na ci mën naa réer mën naa tuuru mën naa senn waaw demal rek directement nga jëlal sa bopp moo gën a sakkan moo gën a wóor te borom bi subhanahu wa taala dina xam ni yow am nga confiance ci moom waaw xam nga yow mi am soxla ci nit ñew ba jub kër gi dal di ma da affaire moy tul li may lijeenti du soti dal di diw te nga dem rek waxal mako ko ba xam damay bañ mu gantuma ko kon am nga ay dut yoy def ci koku kon suñu borom bu fekkante ni da nga mënu talal sa loxo ba ñaan ko kon dafa mel am nga ay dut ci moom tekkiwul nak ni ñi ñepp ñoo ci ñaan lolu munu la nek yonte bi dal na ñaan dal na wax kero Seydina Omar bam ko taggo mu ko di umra ji wala ak mu ci manti don dal màkka la jëm mu ni ko boo demee bu ñu ci ñaan Seydina Omar ibn Xattaab kon yonte bi wax loolu te yonte bi mu fiiti kaw ñep kon nak li nga xamni euh intervention bo nga xamni suko diw defé ci diw mom dina ko nga def ko lolu baxna lolu day xew ci aduna dina xew tamit ci yalla ki nga xam mo la gëna jige yalla wala mën a gën a xam yoonu ñaan man ngaa sukkandiku ci moom waaye du lépp la ñuy sukkandiku am na loo xam doo ci xaar kenn yëkkatil sa loxo rek ndax baabuhu maftuh suñu borom ay buntam dafa tijjeeku ñaan lu tamit ci ñaan la bokk ci ñaan la bokk waaw loolu euh, moo tax yàlla ni iza jaa nasrullahi ndimbalu suñu borom su ñëwee yow muhammad sallallahu sa wa sallam wal fathu ak fathu makka waaw li, am lu dox ci digënté bi lu ko bëgg wax nga na la ci kanam moy ci ay bu mujj ba su ndimbalu yalla li ñëwé ba may la ndam ci sa kaw ay non nga dugg tijji fatu makka kera nga xamni ni bu jiiru arab dugg nañ ci wow, ci waaw kon yalla fatu bi mu ko defal du fatu dekk ba mais fatul qulub la ko defal yalla daf ko tijjul xol yi xol yi won quluban ghulfa xol yi tëj woon lànk bañ a nangu kere xol yooyu la yàlla tijji waaw moo tax ñenn ñi ñoom foofu lañ koy gën a jëmale yàlla tijji te bàyyi benn la benn la ndax dëkk ya tijjeeku nit ñaa tax ñuy wax dëkk ya dañoo tijjeeku nit ña nag seeni xol nangu moo tax ñu mën a ñëw dugg te démb seeni xol a bañoon kon yàlla da ko tijjil xol yi keroog lu mu wax ñu dégg waaw lu mu wax ñu nangu ñuy ñëw di dugg te kenn owu leen moo tax mu ni ko war a ayta nga gis annaasa nit ñi isa gis keroo nit ñi mu ngi dugg ci diine ji yadxuluuna da ngay dugg fii diinillaahi ci diine yàlla ji moo tax saari bu ñu xoolee ñaar yàlla moo ko jëlal boppam bàyyi ko kenn nasrullahi diinullahi fi diinillahi nasr comme yàlla nee na diineem la moom dina dimbali diineem inna lil bayti rabban sawfa yaxfazu fekkee ñële sa yaxmii waaw yàlla moom moomum néegam dina ko aar dina ko sàmm abulahab wax ca abraha da ko tontu woon waaye loolu mooy lii yàlla wax fii lu mel noonu yàlla nee na diine ji diineem la kon nag yow nga xëy ci toolub suñu borom xëy ci diineem ah loolu sag la ci yow ndam la yàlla nag toolam bi néewul ñu ko bayal de tumuraankewul ñu ko xëyal ah, soo nanguwul rek am na milliers yu bari ñu taxaw pour nangu moo tax góor góorgóorlu rek di xëy ci toolu yàlla bi góorgóorlu du xëy ci diine ji def ca kemtalaan kartan kon war a ay nga gis yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam annaasa nit ñi ñi bañoon démb nangu tey lool yaddu na ñu koy dugg gis nga mu jëfandikoo feela mu daare di la wan ni dugg gi du tey kese de waaw moo tax après fatu Makka yëf yi dafa continuer rek nit ñi du dugg rek ñu ngi dugg fii diini diinillaahi ci diine yàlla ci nan lan fa doon duggee jan ñu nekk ay kuréel ay mbooloo yu bare bare wow, waaw par kenn di ñëw di dugg par famille di ñëw di dugg par dëkk di ñëw di dugg par mbooloo di ñëw di dugg afwaja ah ndeysaan ndekete doomu aadama bi soo defee li la yàlla sant ba pare loola nga taxaw ko na nga ko war a nga war a sant yàlla ci loolu nga war a sant yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla dani ko ginnaaw ba nga gisee lii ñaa ngi dugg ci diine ji ndeysaan na ni kera bi yonent bi génn àdduna amoon na ci ay julit miatu alfin wa arbata alfan téeméeri junni ak fukki junni ak ñett ci ay jullit ñoo nekkoon ci jamono boobu ihsaa'iyaat boobu nag xaw ma ci ban baas lañu sukkandiku ba def ko waaye ala xaalin téere wax na loolu kere jullit yi nekkoon nañu téeméeri junni ak fukki junni ak ñeent ci jamono bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di génn àdduna waaw kon nag soo gisee nit ñi di dugg dugg boobu bu boobaa fa sàbbe na nga sàbbal na nga bu baax sa borom na nga ko kañ na nga simmeeku sa bépp kartan ci say pexe ci say xalaat nga jël lépp delloo ko yàlla moo dafa sàbbe na nga na nga na nga setal yàlla ci lépp lu dul waaw da nga setal yàlla ci lépp lu dul yàlla jagleel ko moom kese ndam li ndam li bu ko jox kenn bu ko jiñ kenn waaw jiñ ko yàlla fa sabbih da nga sabbal da nga tudd yàlla gis nga tasbih tudd yàlla muy lu am solo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla def ko ko digal fii te dafa bokk ci liy dundal ruuxu doomu aadama di dundal xolam mooy di di di zikkar ak di sàbbaal borom subhanahu wa taala yàlla limu mu bind lépp li ñu tuddee tasbixul kawn ibnu qayim ca téeram gis nga àdduna bi te loolu aaya alquran la monde bi ni muy sàbbaale yàlla ni muy sàbbaale yàlla wa in min cheyin illa yusabbihu bihamdi xamdi walakin la tafqahuna tasbixahu yàlla waxul fii nit wala dane min cheyin la amul len lu mu manti doon moo xam nit la wala du nit moo xam am na ruux wala amul ruux lu dul rek loola ma ngay sàbbaal yàlla am na ñoo xam ni amuñu ay ruux comme nit amee ruux mais seen ruux mooy a zikr suñ ko bàyyee rek faatu waaw ñoom seen ruux bi leen di dundal mooy zikr malaaka yi ñoo nga ca weer wi mu ngi ci jant bi mu ngi ci géej gi mu ngi ci ndox mi ni muy kadal, ko dal yépp mu ngi sàbbal yàlla suuf si ni pepp suuf boo gis mu ngi sàbbal yàlla ba yére yi nga sol ñu ngi sàbbal yàlla moo tax la ko borom xam-xam ba wax mu ne ko yow lañu kañ ya ci bépp làmmiñ ba ci làmmiñ ko amul gémmiñ waaw yow ya lañu kañ di la sàbbaal wa in shay'in di la lu am gémmiñ di la sàbbaal lu amul gémmiñ di la sàbbaal lu am làmmiñ di la sàbbaal lu amul làmmiñ di la yow nag doomu aadama su la yàlla joxee làmmiñ jox la lépp gën laa fonk ci li mu bind nga lànk bañ koo sàbbaal moo tax boobaa da ngay mujj yées rek nan nga yére bi nga sol di di di di la sutural yàlla tàggat ko pour yow moom mu nangul yàlla yow nga lànkal yàlla waaw walakin laa tafqahuna tasbihahum yàlla nee na du ngeen dégg du ngeen comprendre foofu ñaar moo am laa tafqahuna la yàlla jëfandikoo mais maanaam mënoo comprendre kii nan lay sàbbaale yàlla ban façon micro bii ma yor di wax mu ngi sàbbaal yàlla mais tey mënuma comprendre moom nan la koy sàbbaale waaye tamit laa taf tafqahuuna doo xam ban lakk la koy sàbbaale fi mu ne micro bi mënumaa xam ban làkk lay sàbbaale yàlla mënoo xam euh, olof lay wax wala arabe lay wax wala français lay wax wala chinois lay wax wate yàlla walakin laa tafqahuuna tasbiha xamu leen tamit nombre bi ñuy bi ñuy bi sàbbaale yàlla waaye ñu bañ a xam ñun yàlla ñu bañ a xam ak di dégg li ñu wër lépp nit ñi sàbbaale yàlla loolu sutura ci ñun kon dina metti lool kon njóobeen bi jël kuddug ceebam bëgg ko lekk dégg ko mu la subhanallah ba ko sànni daw tëdd sablal foo wëlbatiku mu naan la subhanallah ba doo eetewu doo nelaw waaw jël sam xay di rendi sam xar wala sa ginaar muy tudd yàlla dégg ko mu a subhanallah ba moytul doo ko mën a tiim di ko rey moo tax yàlla ñàkk gi ni ñàkk a mën a dégg ak di comprendre li koy sàbbaal lépp loolu dafa bokk ci yërmande ak sutura boo xam ne moom la suturaal doomu aadama yi ma ne kon doomu aadama yow yaa gën a yey ci sàbbaal suñu borom waaw làmmiñ woo xam ne du kañ yàlla du ko tudd booba làmmiñ njariñam bariwul njariñam bariwul kon yàlla ni ko fa sàbbix danga ma sàbbaal de ak ma kañ moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni bii saar yu wàccee dafa gën a bari ay ay sàbbaala subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim yu bari lu mu koy wax lool suy jóg moo nga koy wax suy toog moo nga koy wax suy tëdd moo nga koy wax lu muy def gën na yokk sàbbal yi nga xam ne moom la doon sàbbal borom bi subhanahu wa taala rawatina siixa bi nga xam ne mooy subhanallahi wa bihamdihi subhanallah al azim nga xam ni yonte bi nee na boo ko waxee dafay fees diggante asamaan ak suuf waaw tam la aw tam la anima bayna samai wal ard waaw lu lu lu lu lu oyof la ci làmmiñ waaye lu diis la ci balance ci ay tuyaaba ndax loo xam ne day fees diggante asamaan ak suuf ah loolu defe naa ni oyoful dooleem bari na te oyof na ci làmmiñ lool wax ko jafewul kon yàlla ni ko fa sabbih nanga kañ bi xam hamdi rabbika ci sa sant sa borom gis nga yàlla fii am na benn sew-sew ba fi ne daf ko ne ko bi hamdi rabbika ci santuk sa borom man na nga yàlla yàlla ni mu sàbbaale boppam ni mu sante boppam na ko sante noona ma tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne subhanallahi alazim subhaanallahi wa bihamdihi subhaanallahi alazim yàlla ndax lan moo tax waxoon na la ko ca suratu fatiha yàlla moo jëkk a sant boppam alhamdulillahi alladi ibtadaa bi hamdi nafsihi qabla an yaxmadahu xaami ndeysaan yàlla moo jëkk a sant boppam moo tax mu ni ko na nga sant waaye sant gi na tegu ci kaw ni ma sant sama bopp rek parce que yonte bi amul feneen fu muy jële beneen sant moo xam ni daf koy mën a inspiré wu di ko sant yàlla lu du yàlla moo ko wax sante ma nii beneen bi tamit amul dégreb sant yàlla sant gu yayoo jëmmi yàlla dañ ko war a sante moo tax kon yàlla dañ ko jëlee sa sant rek nga sof ko ci ni ma sant sama bopp su ko defee li ñu manqué moom yàlla mottali ko boppam waaw parce que koo xamul koo koo peegul koo xamul mënoo koo ñawal ko xamul dimension ñawal ah, waaw waaw mu mu manqué moo tax comme mënuñu peeguñu ko xamuñu dimension toll ci li jaadu ko a waxee ak ban pour mu yombalal ñu mu jaar fa ba ba ni yéen def leen nu ngeen def rek essayé leen rek def na man dinaa ko noté comme ni nga la la la la sama waaw moo tax tudd yàlla dafa am solo lool nit ñi dañuy wax toujours ni foofu la ñuy rawantee waaye julli farate yi ñëpp koy julli nit ci bari bokk boo jullee mu julli waaye bakkar feggu yi nit ñi di def ca naafile yaag tudd yàlla yaag yooyu loolu mooy may nit ñi force beneen bi mooy yow mi nga xam ni da ngay yëngutu ci wàllu diine jeeg woote beeg jàngale beeg faaw nga am benn force boo xam ni moom ngay ah mom ngay dolli ay heure supplémentaire yo xamni mom ngay dolle sa bop waaw ndax nit balang ko may ker dang koy sut mata yantabi sallallahu alaihi wasallam sallam ci rek aliko fa sabbih bi rabbik kagn ma rek sa kagn sukkas ni ko ko jokk ko ci sama boss rek waaw mata yeen say nit wax lo xamni tiyaba ja du ko xam sax du ko xam sax du ko xam ndax ga mo ci jëmm suñu borom ja léegi ñoom du ñu mën a xam dayo kàddu ga bay bind dayo yiw wa yonent bi sallallahu alayhi wasallam ca boo demee ca téere yi nga xam lañu tuddi almasuraat mooy al azkar yi nga xam ni dañ ko jële ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko daan def bokk na ci mooy yaa rabbi laka alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik yow suñu boroom sant yow yow la ñeel comme ni mu jaadoo ni mu méngoog sa jëmm jëmmuti ak sa pouvoir bu màgg bi xam nga malaaka yi day bind suñu tiyaaba yi moo xam ay wax la wala ay jëf la yente bay nettali kàddu googu bi ko benn waay waxee malaaka yi xool kàddu gi pour bindi ko xamuñu dayo ji kàddu gi am ci wàllu tiyaaba mënuñu koo xam waaw ndax ndax rëy gi mu rëy ñoom ñu jaaxle faaw ñu note waa ji te xamuñu ban note la war a am ndax 10 lañ koy may wala wala 20 sur 20 wala 40 sur 40 xamuñu ñu dem ci borom bi ñu ni ko sa jaam bi daal wax na kàddu goo xam ne ñun xamuñu dayo bi ni mu toll yàlla ni leen lu mu wax ñu wax ko yaa rabbi laka alhamdu kama yambagi li jalaali wajhika wa adimi sultaani yàlla ni leen yéen bindi leen rek noté leen rek lu ngeen mën a bind ci tuyaaba rek bindi leen rek ba yowmal xiyaam man ma fay ko ni mu ni mu ni mu toll kàddu ga toll na mu ko war a faye xam nga ni loolu loolu yiw la woo nga xam ne doomu aadama bi xamul lu mu toll moo tax suñu borom buur bu bari yërmande la dañoo tijjil ay buntu yu yaatu yu bari ci yu ñu yóbbu àjjana waaw digal na ko sàbbaal jàng julli ay jihad yooyu yépp def koo koy yombalal ah parce que bu fekkoon benn mbir la rek fekkoon benn matière la rek amoo ci note doo jàll ah kon day metti lool waaye mu jox ko matière yu baree baree bari pour nga xam ni boo amee fii cinq am fële 10 boo amee fële 10 fële nga am fawe loolu dina tax euh, notes yi nga gaaw mën a jàll nga am moyen moo tax borom bi subhanahu wa taala ci jël ko ay bunt yu baree bari waaye loolu moog jullit yi yëpp ñoo ci yem fa sabbih bi hamdi rabbika kon na tudd ak kañ na ci sax waaw euh, bul dégg mukk nag fa sàbbeex nga jàpp ni yonte bi da ko daawul def waaye fa sàbbeex nanga sax rek na nga sax di kañ yàlla ndax may na la ndam nag may na la victoire fu ne jaar nga fa pexe mu ne pexeel nan la ko waaw jëm nañ laa ray embargo nan la génne na la lu ne def na la ko waaye mënuñu nu yow dara wallaahu yaasimuka mina nas yàlla moo ko aaroon léegi nag kon saxar rek ci dima di ma tudd di ma kañ moo tax sa bakkan sax sa bakkan bu la téye del bari loo tudd yàlla waaw tudd yàlla gu bari day yar bakkan da ngay dem ba da ngay dem ba da ngay da ngay miin da ngay da ngay miin maanaam ëttu suñu borom bi ndax booy sabal yàlla ya rek yaa ngi ci diiwaanam génnoo ci mbiram kenn mënu génn ci moom sax waaye eh. eh, nekk ni waa dul bokk waaw da ngay dem ba da ngay da ngay cuubu ci ak cuubam gi dal ci cuub léegi dara du la safati lu dul waaw moo tax ki nga xam ni eh, julli yeeg walla yenn jaamu yàlla yi walla yenn sàggante yi wala yenn bàkkaar yi daf ko yomb ah wala muy sàggane yenn jaamu yàlla yi nay góorgóorlu rek di tudd yàlla tudd yàlla lu bari léegi rek mu fóot xolam bu xol bi setee cëri oyof cëri nangu bu xol nangu rek cëri nangu waaw waaye góorlu ba xol nangu moo yombul ndax xol comme moy commandé cër euh gis nga ku sa xol taxaw rek nga faatu da amé arrêt cardiaque waaw kazalika tant xol bi mu ngi animé wu di dem di dund ci ak jaamu yalla di dund ci zikkar di dund ci bëgg yalla cër da koy fekk ci parce que suñu ñoo bañ amuñu pexé waaw Bal qalbu minhu malak yonte bi na sallallahu alayhi wasallam xol moy seefu waaw mooy seen chef làmmiñ nag moom mi ngoog moom bu ku xëy muslu ci moom cër yëpp mun xëyee wër ko ne ko dimbali ñu de fexeel ba bu ñu fi waxal tooxi doon waaw fexeel ba bu fi wax ñu lu tax ñu tëj ñu fexeel ba bu ñu wax lu tax ñu duma ñu tànk ni ko fexeel ba bul wax loo xam day tax may daw waaw loxo ni ko bul fi wax luy tax ñu mën a tema waaw yaram mi ni ko bul fi wax lu tax ñu sama der bi ñu nekk ci waaw moo tax làmmiñ moom maar day taal cër la boo nga xam ni ah la luqmaan seydina luqmaan alxakim waxoon rek làmmiñ ak xol ñoom ñaar yooyu daal bu ñu baaxee mooy li gën ci nit mooy li gën a bon ci nit xol bu baaxee baax na rek waaye su bonee bon na làmmiñ su baaxee baax na waaye su bonee bon na rek waaye ku boole ñaar yépp xol ba dara baaxu fa làmmiñ wa lu baax du mën a génn ndax inama ju ilal fuaadu انما جعل الكلام دليلا على الفؤاد نيت كي داني واخني لي واخ تكتال ني لي نيك سي بير موي ген لي نيك سي خول كون نك خول بوكو بوجي فوت بوكو بوجي رخص دا سبال يالا دا كو تودو كو تودو لو بري واو امول اور امول وقت فوكو ماني تودي رك تودل واو كون نك غا غيس لي مالا واخ غا غيس لي خيو غادي ما كاني di ma sant di ma bakk bu ca yem wastaxfirhu xoolal rek gis nga yàlla def na iltifaat ñu tuddee iltifaat ci balaaxa fa sabbi bi hamdi rabbika wastaxfir li rabbika mën na ko wax loolu waaye mu ne ko moom léegi mu mu mu génnee kaaful xitaab bi indi damir ji remplacé moom moom moom borom bi subhanahu wa mu ne nang ko nang ko jégglu say bakkar dafa mel ni ne nga wax yonte bi kon moom xanaa lim doon def daa baaxul woon wala bakkar doon def dee deet ah kay liggéey doomu aadama yàlla kenn mënu koo jox aqam ba mu mat loo ko defal manqué na wa ma qadarullaha xaqa qadari kenn mënu koo jox gëddam bi mu yore moo tax julli gi ngay julli moo tax yonte bi sallallahu alayhi wa sallam su masaana sëlmal julli rek dafa astaghfirullah commencé djeglu yalla ah wa julli mom bakkar la ñun mom li ñu min fi moy ko wax astaghfirullah rek moy. say bakkar bari wa dedet julli gi ngay julli parfa ci bir julli gi sa xel man na dem ci nangam kon wa ma qadrullah xaq qadr yàlla nee na joxuma li ma wara jox de sa lepp ma ko war jamono bi motax tax yonte bi su rek ni astaghfirullah julli rek la jox exemple mais jamu yalla yep wa yep rek ben bu nek rek na yàlla yayoo jàmm ko jëmmi doomu aadama lott na ci taxawe ko noona moo tax boo paree nag ne ko yàlla maa ngi lay jéggul li ci matul jangal ma ko rek waaw moo tax mu ni moo tax mu santaane jéggalu lu bari waaw astaghfiru dañ koy jéggalu doomu aadama dafa soxla njëggalu suñu borom dafa soxla njëggalu suñu borom nekk ci kaw suufam sii rek dox dama ko ñëw rek war naa tax nga di ko jéggalu bu ñu santul woon dara bàyyi ñu rek binduñu ni leen dem leen def leen yëf yaa ngoog loolu rek jar na nga di tuub ak sukk di raam ci kanam waxtuma laak nag mu sant la ay mbir nga gàttandu ca mënoo ca dara te euh, astaghfirullah njariñee bari suñ jamono bi ñu nekk mu musiba yi xew ah, natt yeeg yooyu lan tuub dellu ci yàlla rek bu ñu tuubee dellu ci yàlla rek borom bi subhanahu wa la góor ga waxoon rek moom mooy wàccee jangora waye moy wacce safara waaw te bir nguuram gi nak lu lu fi am rek da ko neex programme bu fi wé rek da bëgg bay mu jall waye bu fi neexul mu du dem comme ni tay def loolu waxta waxtu mu laak suñu borom waye nak yeen say mu mu mu indi dara ñu indi dara mu bayyi setan. ba nit ñepp jaxlé nit ñi dem seeni pexé ba jaxlé seeni pexé dem seeni xam-xam ba seen xam-xam jeex mbir mi du continuer ñu ñu tourné nga ne mu lee aha mi ngoog waroon ngeen a teel a ñëw dafa qultu taxfiru rabbakum innahu kaana xafaara jéggu seen borom bu fekkoon te ni waxul xafaaran sax man ngay laam-laamee waaye xafaara jéggu laa kon la bu boobaa yursili sama aleykum midraara waaw naataa nga ñëw ba mu dit kum bi am wàllin wa banin lépp ni gàññ bu lépp nee gàññ nag te yim fi tudd yépp lu baax la kon lii safaanu lu baax day dàqu la Xasan Basri waxoon euh, ñi nga xam ni ñoo doon euh, sàkku kii ni dafa bëgg euh, mbay mi daal doxatul kenn ki ni ko njaboot daal laa soxla kenn ku ni ko koom-koom bi dafa des waaye ñoom ñépp mu delloo leen ci astaghfirullah mooy istixfaar ñu ni ko waaw ñii de seeni soxla dafa uute waaye saafar si nga leen jox benn la mu jàng leen aaya bi aay bi loolu la fi tënk benn waay ñëw ni ko yaa Abaa Yaxya man ni ko man de dama bari bàkkaar mu ni ko ay na anta minal mamha noo def ak gom gi ñu yàlla jox yàlla dañoo jox astaxfirullah mu nekk ko gom gun ci gomee suñuy bàkkaar waaw kon yente bi yàlla ni ko astaxfiru na nga ko jéggulu rek innahu nak luy mbir tey mbir moom suñu boroom kaana mësula dañ di nekk tawaaban di nangu ko ak kuntuub ku ko tuub rek wa man taaba taaballaahi alayhi ku tuub rek yàlla nangu la sa tuub kon saar yu mooy suratu nas mooy iza jaa nasrullahi moo tax ñi nga xam ne dañ yittewoo ci mbiru alxuraan rek da ci aju boo amee loo bëgg am ca ndam dee ko jàng suratu nasr mooy saaru ndimbal alxuraan nag loolu taxu koo jóg waaye ci la bokk maanaam du moom kese moo ko tax a jóg jëfe ko ak nangam waye li bu ñaa bu leen ci yalla defal la suratul nasri le bëgg victoire rek de ko ci faral di jëfëndiko yalla manal ci may ndam bu soob yalla ndax yalla mi ci feñal ndam li nga xamni mom la may yonte bi sallallahu alaihi wasallam sar la woon xam nak baat bi di nasru nasru yu bari ci e, nit ñi buñ koy jang dañ dañ yaq isa jaa nasuru la ñuy du nasuru waaw nasru lahi beneen bi ci topp wal fatxu dañ koy yàq wal fatu la ñuy wax kalaasu nday anta gi wal fatu wal fatu moom subaarkàlla du neex a firi wal fatxu kon alquran faaw ñu yittewoo jàng ko waaye yittewoo man nin koy jànge yittewoo man nin koy jànge ni ar jàng alquran nekk farate noonu la njàng ko njàng mu normal nekke farata noonu ndax ñaar yépp alquran moo ko dégle wa rattilil qurana tartila yalla mo digle ñu jàng alquran jang mu wér njàng alquran farata la jang ko jang mu wër farata la nit ñi nak tay neex ñoo jubanti koo ci jubanti mu gis bopam na la noko man rek nga ko defee wala noko jangé baxna bu fekkee noko jangé baxna baax gem gëm-gëm nga ci yow wedd nga alquran a kon gëm nga ni alquran noo ko jàngee te yalla waxul wa euh sar yu bari bokk na ci ni yaq inamal usri yusran ñu ci bari inamal yusri yusran la jang boo demee ci xul yaal kaafiruun ah wala ana abidun wala ana abiduna la ñuy wax ah suratul inna anzalnaahu bi idni rabbihim ñu ci bari bi ismi rabbihim la ñuy wax kon yooyu nañu góor góoru dem koo corriger gis nga alxuraan faaw nga am cib sëriñ mënoo ca nekk sa sëriñu bopp faaw nga am ku ko jàngal ndax loolu moo ci cosaan yàlla subhanahu wa taala moo ko jox yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam te bi mu ko koy jox yàlla daf koo jox jibril jàngal ko jibril moom suñu borom ba jibril man ko jibril ñëw di jàngal yonte bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi alayhi salaatu wa salaam jibril jàngal ko ko yonte bi man ko di ko jàngal saxaaba yi moo tax ba yonte bi di yàkkamti sax yàlla dañ ko déedéet laa tuxarrik bihi lisaanaka li taajala bi inna alayna jam'ahu wa qur'an fa ida qara'naahu fattabi qur'ana la ca des nag tuma inna alayna bayaana waaw kon lolu mo ci ciosan ci alquran ak wa innaka latulqa alquran min ladun hakimin al kon talaqi bobu nañu def effort dem ci ku man alquran mu sañu ko sabu wér nga xamni duñ ko mokale ci ak yaq nit ñi mom lu ne lu ne sañan ci fay wala lu ne sañan ci def ak yitte pour bañ ko yaq ba bam dess des alquran waaw tay bo do lire ben discours di nga def effort ba do ci yaq ba ci jankati arab sax dinga fexe ba boo doo damm garaameel ba doo doo doo doo juum ci dama iri wala nangam ñu ngi ciy def effort waaye alxuraan ji moom seen yow nekku ci mokkal nan ay diiwaan mokkal nan lu ne waaye alxuraan saar yi néew lañ ci mokkal te loolu nag wasila la du xaaya ay diiwaan ak ay naxw yeeg ay aaru yeeg balaaxa yi loolu wasila la rek mooy la rek pour nga mën a comprendre alxuraan kon kay wasila bi bu mu la gënal xaaya bi bu boba gaaya bi wasila bi amatul njariñ parce que sa gaaya boko tahqiqul sa hadaf yi kon sankuna kon mbokk yi nañuy teewaat alquran surtout nasro ngo sarwa ngi nonu don tàgg yonte bi sallallahu alayhi wasallam sarwa ngi nonu don yëgle fatxu màkka sarwa ngi nonu don digle li nga xamni moy euh yonente bi yàlla delo ko njukal delo la yàlla njukal mom yonte bi sallallahu alayhi wasallam yàlla ni ko ma njukal saar waa ngi noonu di o nit ñi ci ak tuub ci dellu yàlla dellu ci borom bi dellu ci yàlla dellu ci borom bi subhanahu wa taala ndax suñu borom tawaab la tawaaba la ko tëjee waaw ku mën a nangu tuub la boo xam ni boo tuubee rek mu jëgg la say bakkaar xam nga tuub damay wax ni dafa neex ndax suñu borom boo tuubee bakkaar yi du yam ci bàll ko waaye soppi ay tuyaab ulaika yubaddilu sayyi'aatihim xasanaat waaw yàlla nee na sayyi'aat yi nga xam ne moom nga defoon ñaawteef yi dama la koy baal ba pare waaye dama la koy duma ci yam dama koy wëlbatiku defal la ko ay tuyaaba kon kay lii moom ah waaye nag waxuñu rek nga dégg lii daal ni kon xaaral ma dem defi njombe daal dem tuubi ndax déedéet na nekk loo xam ni anadamu lay doon da ngay da ngay am ak rëccu mu naqareen nga regretté lool loo ko defee woon wa niyetu an laa yaudu ila dan bi fi ma baqee min umri na ko borom ndax dëri waxee waaw nadamu ala ma faata waaw da ngay rëccu li paase nga yéene ni doo ci dellu wa an yatraka al maasiyata fi saatiha in kaana mutalabisan biha nga daal di koy bàyyi ti faaxan simee ca ba set ca wécc su ko defee mbokk yi sarwaangoog lu ci jub yàlla na yàlla euh, boole yiw wa ci dëng yàlla ko yàlla jéggal soppi ñu ko defal ñu ko yiw mbokki daara yi nga xam ni ñoo doon topp mbir mi bu ci amee lu rëccal seen fit ñu xam ne doomu aadama moom moo bindoo ak matadi waaye borom bi subhanahu wa taala moom moo yooyu ak matt yoon ñu ngi ñaanaat rek di ñaanal kër gi ki nga xam ne mooy président ba ci e, ñëpp rek personnel bi yàlla dafa leen barke dafa leen yiw may leen ndam ci liggéey bi lépp loo nga xam ni sumb nañ ko yàlla def ci ndam nuyuwaat yi nga xam ne mooy imam ratib joxaat ko nuyoo bi ak eh, suñu sëriñ imam pap ak ñi top ci ñom ñëpp rek ak ñi nga xam ñoo nekk ci suuf di coordonner yor liggéey bi daan defee leen ni waxé leen ni ñoo xam ni duñu bëgg a feeñ ci leen ndeysaan yàlla na yalla fay leen jiw yalla na yalla barkeelal leen ñom itam aqulu ma tasmaun li wa lakum wassalamu alaykum wa rahmatullah